Maître Amath Thiam maa ngi lay nuyu. non ma lay fay madame Soxna si ma fay ba. Maître Amath Thiam nga nekk consultant en droit d'abord nga wax ñu ci euh, sortie du territoire national bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ci frontière bi nekk ci diggante Sénégal ak Gambie moom nag mhm. nee na si njeexitalu instruction bi am na euh, droit daal di génn territoire bi maanaam contrôle judiciaire bi dafay daal di jeex en tant que mhm. euh, juriste wala consultant en droit ban analyse ngay d si mbir moomu. waaw li ma ci mën a def mooy euh, institution bi d'habitude bu daan jeex juge bi ci boppam mooy xaatim kay jox ko avocat yi ci bokk ci institution bi ak procureur ne leen institution bi jeex na enquête man pare naa ci léegi nag boo defee boobaa ñu dem procès mais dama xamul nag kayit boobu am na wala amagul parce que bul fàtte bi juge d'instruction bi jëlee ordonnance bi avocat Ousmane Sonko dañ ko attaqué woon devant la chambre d'accusation mais ordonnance bi dafa am ay illégalité dafa am aussi ay exception d' inconstitutionnalité maanaam dafa am ay disposition yoo xam ne vieux con dëppoo ak suñu charte réew te juge bi visé loi yi bon bi ñu demee chambre d' accusation chambre d' accusation dafa daf la wax ne dafa wax ne ni juge bi wax tegewul mu dàq mu dàq la ñu wax ñoom. Mm-hmm. avocat Ousmane Sonko koy jëlaat kayit bi dem xaar bi dem toppaat mbir yoon demaat cour suprême ci chambre criminelle chambre criminelle aussi dëggalaat li chambre d' Maham Diallo léegi nag buy loolu amee procureur jàpp date procès bi jàppee date procès bi bul fàtte enquête moo gën a yaatu institution parce que institution ci biir enquête la nekk. loolu mhm. nañ ci biir enquête Maham ba léegi jël na ordonnance de certes confirmé nañ parce que jël na mais c'est le Ousmane Sonko du moom boo nekkee ci enquête du yaay décider enquête bi fu mu jëm wala yow yaa koy jeex wala jeexaloo. juge bi enquête bi que ñu moom am na ay droit certes yu mu faire prévaloir yoon may na ko ay droit yoo xam ne mën na attaquer lépp lu mu def mais juge bi ñu joxoon enquête bi moom moo war a wax enquête bi kañ lay jeex jaana tàkk moom par na ci mu jël lépp lu dossier lépp li pièce justificatif yeeg preuve yi ko procureur pour ñu mën a dem procès procureur moom it jëbal ko juge nga xam ne ñoo war a préparer pour atte procès bi noonu lay demee mais contrôle judiciaire bu ñu la ko defee en général yoon da lay teg juge da lay teg ay la bokk parce que ñu am contrôle ñëpp tribunal da leen di wax ne la chaque weer wu dee na mm-hmm. nga ñëw fii nga signé sayit bi war ne yaa ngi fi. génnoo réew mi te bala ngaa changé sa kër wala ngay tuxu na ma tàgg wala da ngaa bëgg a sa kër dem beneen kër ma xam sa adresse fa nekk pour bu lay envoyé ëllëg convocation ma xam fan laa koy envoyé. Mm-hmm. loolu dafa bokk ci condition yi contrôle judiciaire ak dossier bi aussi bu ëllëgee bu ci waxati fii bu ci wax en public maanaam ci presse wala ci a nekk daal loo xam ne boo voilà loolu danañ koy faral di gis si contrôle judiciaire contre bu parenthèse aussi contrôle fu mu doon ne mënoon jox Ousmane Sonko passeport am bi. Mhm. ba pare bindal bindal ko interdiction de sortie dem jox ko waa aéroport. jox ko direction de la de la de la de la de la sécurité euh, euh, des mhm. ba pare jox ko waa aéroport ne bu mu génn ba pare jox ko passeport am mën a def loolu. d' accord léegi kon Ousmane Sonko acte bi mu def lan moo ko si mën a euh, fekk maanaam qu'est-ce qu'il risque exactement. bon bu juge bi jàppee ne acte la juge bi wala ko mën a révoquer wala gendarmerie dana ngeen jàpp ko parce que juge moom mooy apprécier mu jàppee ne lii. Mhm. jaru ko kii mënul génn fii amul problème mun na ko bàyyi noonu mën na ko defal lu la neex de toute façon voilà procès da nga dem procès mais juge bi aussi bu gisee ne lii c'est un acte de vis-à-vis de la justice juge bi mën na wax police bind këyit def mandat d'arrêt mandat man man man mandat d'arrêt d'amener hmm. maanaam jox ko police wala mu jox ko gendarmerie ñu dem jàpp ko bu ñu ko jàppee indi ko juge bi mandat d'amener comme ni defoon Pape Alé Niang suñuy bi rek ko d'office euh, contrôle judiciaire bi ko mandat dépôt parce que en général d'habitude de façon générale liñ ci cas yi ci kese gis yëpp quatre vingt pour cent képp kuñ toppee affaire crime mandat dépôt lañ lay dóor hmm. mais nag mandat voilà moom nag dafa am la a bénéficié Ousmane Sonko dafa bénéficier les largesses de la loi ju dafa contrôle judiciaire voilà euh. contrôle judiciaire non pas di ko voilà la ko dindi saa su ne saa su ne juge mooy apprécier na mën na ko dindi wala mu jeexal ko. Euh, tey jii maître Amath Thiam euh, bi nga xamante ni dañ ko def sous contrôle judiciaire lan la mën a def ak lan la mënul def exactement. bon contrôle judiciaire bu ñu la ko joxee mooy dañ lay bàyyi nga dem dañ lay bàyyi dañ nga libre mais amoo yoroo sa tegu lu guy. ci n'es pas libre cinquante pour cent à cent pour cent seen liberté bi maanaam dañ koy wàññi wala ñu xaaj ko bu baax li ñu ci faral di gis mooy liberté euh, con conditions yi ñu teg ci contrôle judiciaire yu bëri mooy faral di gis ci contrôle judiciaire yëpp mooy benn si bi da ngay wax bul changer fëri kër bala ngaa tuxu di dem feneen nag moo ko yëgal sa passeport da koy jël troisièmement danaa la bala ngaa génn boo bëggee tukki da ngay ñëw si man nga tàggu ma da ngaa bëgg a tukki ma may la ndigal ñeenteel wala juróomeel ba mën na laa wax ne chaque weer wu dee na nga ñëw fi sama griffe nga signé wala na yaa ngi ci dëkk bi demoo fenn te ñett juróomeel wala juróom-benneel bi mën naa la wax na la dossier bu ci waxte ci biir mbooloo wala ci presse aay naa la ko kon yooyu mën na nekk ak ci biir yeneen condition ça dépend ci gravité infraction bi wala connexité infraction bi yeneen mën na ci tegu mais yooyu lañ gis ci gën a siiw yooyu ma lim noonu moo gën a siiw ci contrôle judiciaire bi ñu dalaa jéggal mandat dépôt bi contrôle judiciaire lay dóor su nekkee li nga def def nga loolu weng wengaala te kenn mënu ko dindi te enquête pareegul juge bi mën naa bàyyi mandat dépôt loolu la contrôle judiciaire su xamee ne heure bu la soxlaa di nga mën a ñëw mënoo daw loolu mooy contrôle judiciaire bi mooy xëy na bi jeex enquête bi jeex na pare naa pare nañ ci man. tribunal mooy pare na pare na pare bi c'est léegi euh, beneen euh, ponk bu soxal actualité bi naka nga gisee affaire journaliste bi di Babacar Touré nga xam ne actuellement mi ngi si loxol yoon gannaaw benn plainte boo xam ni Frédéric Napoli moo ko daal di déposé naka nga gisee procédure bi est-ce que c'est normal actuellement. bon concrètement dégg naa dañ koy toppee diffamation. waaw xam nga li moom bu la porté plainte moom lii yoon mooy procureur déglu la procureur jël plainte bi jox ko ñi nga xam ne ñooy enquête parce que procureur enquête police ak gendarmerie ñooy enquête su ko neexee jox ko police ko jox ko gendarmerie léegi bi ko joxee police police oo ki nga xam ne moo porté plainte déglu ko biñ gannaaw bu ñu ko xam ne aussi mooy Babacar Touré Këlu moo la ñu déglu ko ah, dégg naa ci yooyu bay ñu ne bi ko dégloo ba pare am na charge yu ko notifié na ko lii ñu lañ lay toppee da ngaa nekk tu es actuellement en position de garde à vue yow nekk garde à nag police bi mu paree déféré na ko yóbbu ko ci procureur président procureur ñu defal ko retour de parquet yaakaar naa mi ngi ci ñett wala ñeent su ma su ma su ma léegi nag soit procureur moo ko yóbbu moo koy def retour de parquet parce que dafa am élément yu muy xaar wa ilaa juge d'instruction bi aussi procureur mën naa jël dossier bi jébbal ko benn cabinet d'instruction bi juge boobu pareegul pour auditionner ko da ko yóbbu aussi da mën na ko parce que route parquet ñu bëri ñu ngi koy ŋaañu mais route parquet danaa yoon prévoir ko moo tax procureur di ko def di ci abusé tout temps koy def parce que kon li ñuy wax en droit nag tout ce qui n'est pas interdit est permis puisque y a pas une disposition légale dans le code de procédure pénale ou qui interdit le route de parquet formellement moo procureur di ko def loolu la mu mën route de parquet. d'accord beneen ponk bu am solo maître Amath Thiam ñu gis ni fan yi soxla élection présidentielle bu 2024 waa PDS ñu ngi wax affaire si ñoom ñu ne dañoo bëgg ñu réviser procès bu Karim Meïssa Wade laaj bi moom mooy est-ce que fii ak 10 mois 9 mois yi des ci élection bi c'est possible ñu def fi euh, procédure révision élection bi ba moom ba seen candidat mën a bokk ci présidentielle bu 2024 est-ce que c'est possible en termes de procédure ah dina ma xaw a jaaxal nag bi lenteur judiciaire yi am ci dëkk bi constaté ci dossier yi dina ma xaw a jaaxal trop euh, en dehors même de ces lenteurs judiciaires am na tamit li ci tegu mi ñu wooyee maanaam ci requête ba requête bi avocat bi bind war ko kalaamee pour ñu ubbiwaat dossier bi parce que yoon nee na ministre de mën na ko def comme aussi ki nga xam ne moom la ñu tëj mën na ko def jabaram mën na ko def mu nekkee jigéen la jëkkër mën na ko def su nekkee aussi ay avocat mu ne mën nañ ko def wala képp koo xam ne mën nga kaa doonu mën nga kaa def waaye yoon daf ne boo indi élément da ngeen élément yoo xam ne élément yu bees yi wane ne waa ji lañ ko doon toppee ba dek ko ca laalewu ca dara wala ca dara élément yu ngeen indi mais bu nekk kër wala am na élément de droit et de fait yi wane ne moom laalewu ci wala am na ay seede yi wane ne moom laale ci seede ya yaa ko seetloon takkal ko dañoo dañ ñoon nar wul ndëkk dañoo dara amu ca ñoom ñoom seede ñoo prouver nañ ñoon wax dans ce cas là mën nañu koo seetal élever dossier bi mais il moom ay éléments yu substantiels yu mën koo mën a élever dossier bi mais bu amul ay éléments de fet ou de droit substantiels yoo xam ne mën na poser dindi culpabilité bi seetal ko je ne pense pas que les juges dañ mën a statuer légalement ne jar nañu élever dossier wala du ko jar te aussi comme li ma leen wax ci njëlbeen ba aussi problème de procédure dafay problème de temps dafay posé wu voilà. Euh, beneen laaj euh, moom mooy ñu ngi dégg fan yi leaderu Pastef di utiliser terme désobéissance civile euh, loolu terme boobu lan la ëmb exactement maître Amath Thiam si sa hmm, terme boobu c'est historique bon maanaam Gandhi laa ko njëkkoon déggee ne moo ko doon def bi ñu def seen mouvement yi ñu daan def à l'époque di protester contre la l'oppression de l'État dañu wax na ñoom lépp loo xam ne war nañ ko def ci état bi duñ ko defati lépp lu war lu leen warloo ci état bi maanaam fay impôt ay war a respecté yenn réglementation yi duñ ko defati maanaam daal lépp lu yoon ne def leen lii état def leen lii duñ ko defati lépp loo xam ne aussi warloo nañ ko état bi ko defati maanaam justice mën na laa convoqué uy police mën na laa convoqué uy juwoo yaa ngi dégg cest lépp loo xam ne daal da ngay défier autorité bi moom ngay def loolu mooy désobéissance bi forme de lutte syndicale la ou politique mën na nekk boo amee droit bi def ko mais fexel ba bul trouble sa droit boobu nga am fexeel ba bul trouble ordre public bi wala sa droit boobu aussi fexeel ba bu ci jalgati yoon ba bu ci tooñ nit loolu la mooy affaire bi parce que aussi boo waree fay impôt fayoo impôt ah impôt day mën na ñëw say say bien de waaw c'est à risque c'est-à-dire de de de bataille mais ah c'est à risque euh, c'est-à-dire à à bâton à double tranchant la. Euh, dernière question maître euh, ñu wax li xew fële ca Touba jeunes yi nga xam ni dañoo saccagé euh, foofule fi nga xamante ni ñu ngi fa doon inscrire ci liste électorale yi hmm. ñi nga xamante ni ñoom ñoo def jëf ji lan la leen yoon mën a teg bon xam nga d'habitude moom nit ku nekk boo jëlee sa alal nga gàññe ki ci yaramam maanaam cause blessure volontaire wala nga yàqale ay alalam jël alalu nit yàq ko wala alalu loo xam ne ñëpp ko bokk c'est-à-dire bien commun ou léegi ñu wax bien appartenant à l'état ou édifice public yi nga xam ne état moo ko moom tabax ko pour ñëpp bokk ko wala pour doxal ay services am soo ko attaqué nga yàq ko quelle que soit la raison préfet bi nga xam ne moo fa nekk wala autorité bi ne moo fa nekk am na droit mu porter plainte x bu xam ne ña nga xam ne ñoo ko def mu porte leen par personne nominatif ne ñii ñii ñii dañoo yàq fii loolu si mën a tudd enquête parce que ni ni état bi di protéger citoyen bi ci alalam ak ci jëmmam ak ci liberté dama nga ñëw noonu lañ protéger aussi les établissements publics ou les édifices publics moo xam bërëbu ci jëntukaay liggéeyu état bi ubbi pour nit ñi la état bi moo ko tabax pour li pour doxal service am doxal administration bi ah ñun nag soo ko yàqee su quelque prétexte que ce soit euh, ki nga xam ne mooy responsable bañ déggam kër ga su nekkee moom dafa porte plainte ah yoon mën na bu nekkee tegoo ko fenn parce que aussi yàq dafa baaxul aussi sur le principe yàq baaxul nit mën ngaa euh, kaas la naqar di wax ko ni ko mais nga bañ a yàq. Maître Amath Thiam Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi ak nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj. maa ngi lay jaajëfal madame jërëjëf merci beaucoup Maître Amath Thiam may fàttali ni consultant la en droit merci beaucoup. merci jërëjëf. merci beaucoup